benn néeg dinaa ko ma tabaxal sëñ Touba sëñ Abdou Khader hmm? waaw. Ah, waaw yaa ngi ci biir sëñ Saliou ba tey. waaw ñaar ñooñu. <laughs> sëñ Abdou hmm. bëggoon na ma bugg boo xam ni man yéemoon na ma. Hmm. maanaam daan naa nekk nekkoon naa xale nii dafa ànd ak ñii nga de ñu bëri ñu ni coow tey mais bu ñu ñëwee sama mbir dafa daan ñor ñor boo xam ne doyoon na waa sax. ba benn jour sax moo xarit ne ma waaye di ma tooñ naan ma yow xanaa sëñ bi dafa am feneen fu ngeen daje ma ne man sëñ bi fi ma teg jaaxal na ma. <laughs> boobu ñu ngi war a jóge foofu euh, dem kër sëñ Saliou ñaar daal. Mm-hmm. Euh, maanaam lépp sax sëñ bi <laughs> la. ndax man sëñ bi laa gëm waaye bis boobu. Mm-hmm. njortoon naa ne. Euh, bu dee benn fan sax dinaa mos a liggéey mm-hmm. xëy na sëñ Tuubaa wala daal dana mos a doon dara ci murit. waaw gannaaw sëñ bi moom moom moo mos def loo xamante ni. bëgg na ma ñeneen ñëpp nag sax jaxasoo nag ñoom. Mhm. ñu bokkal jamono. Mhm. ku mel ni góor yàlla sëñ Moutala. Mhm. Euh, sama ñaareel doom moom ko tudd. bari. Hmm? waaw. Hmm. loolu lu jafe la di bàyyam aw ma du doomu sëñ Tuubaa mu tudd lu jafe la. waaw jaxasoo woon nañ maa ngi moom jaxasoo boo xamante ni ndax xam nga moom. Euh, li waraloon moom mooy ñu nekkoon bitim réew yëpp moom lañ amoon chance. kuy mhm. doomi sëñ Tuubaa ñu mhm. koy gis. Mhm. waaw moom tam bëggoon na ma bëgg boo xamante ne yéeme woon na. sëñ Sonia bu sax moom gis naa ko ay ay yoon waaye bëriwul ñu ngi koy mujj gis maa nga ànd ak sama maam ba mu naan ko bul toogati ci suuf ba pare naan ko boo fi ñëwatee na nga ko na ñetti yoon. dama xam ni yow la. waaye ñoom ñëpp ku ne am naa fa jaar jaar waaye lépp nag mm-hmm. dama daanoon jël sama àdduna rek. jox lépp sëñ Saliou. Ah. te gis nga sëñ Mamor. Mm-hmm. boo buggee dëgg dëgg. Mm-hmm. sëñ Touba. du bind ci caaxaan. du wax ci caaxaan. ba gis nga nii sëñ Muntaxa mu baax mi. ku xamoon sëñ Saliou dëgg xam ne da ko liggéeyal. man sax mosuma njort ni sëñ Moutala dana doon xalifa murit mhm. waaye dama ko fekk ay yooni yoon ci sëñ Saliou. sëñ Mountakha waaw sëñ Sidi Makhtar noonu. Mhm. mii fi ne woon. Mhm. waaw daan na wax bu fekkoon gars ci sëñ bi naan ngir yàlla may leen ko te ngeen sakkanal ko. maanaam ba léegi daal. prolongement sëñ Saliou Mbacké fi ne.